Euh, di nuyu njaboot gi nga xam ne mooy jamaa bi nga xam ne ñoo boole seen bopp waxtu wu nekk ngir taxawalal maam Cheikh Issa Dienne bis bii sunu borom may nu feex ca bis bu njëkk ba ba ci bisub tey bii bis yi ñoo koy ànd ak yéen ñaan yàlla li ñu ci weesu lépp yàlla na ko sunu boroom gërëm te nangu ko te dolli nu kàttan ba li ci sunu kanam lépp mu nangu ko ñi fi jiitu leeral ci lu bari nu indi aslëf ci diggante maam Cheikh Isa Jenn ak maam Thierno Ibrahim ak Seyxul Xadim muy loo xam ne lu gàtt lay doon ndax jataay bi dafa am solo te tomb bi bokk yi tànn ren mu am solo muy diggante maam Cheikh Isa Jenn ak xam-xam ak maam Thierno Ibrahima borom Daarul Muxti ak xam-xam ñu nekkoon ñoo xam ne it boole gu dëgër moo dox seen diggante muy maam Cheikh Issa ak maam Thierno borom Daarul Moxti boole goo xam ne yu baree bari dox na seen diggante ñoom ñaar euh, bokk na ci seenu bokk ku nuy roy bokk kun bëgg bokk kun jublu muy Serigne Touba te loolu am naa lettre boo xam ne euh, sëñ Ahmadou Diaw Paxa moo ko bindoon maam Thierno. boroom daarul moxti ci jamono ba nga xamee ne nii paxa gële ca gusaas dëkkam boobu dafa lakk mu yónnee maam Ceerno ab leetar waaye ca ba muy jeexal leetar ba sëñ Ahmadou Diaw paxa dane ko maa ngi lay jottali nuyoo sab xarit sab soppe Cheikh Issa Diène mi nga xam ne nag du roy kenn ku dul ki ngay roy muy sa royteef te kooka mooy royteefu nit ak jinne mu Cheikhul Xadim daal na ko nag duma la jot li mukk yow nu yóbbu ku la bañ yow maam Thierno ndax ku la bañ lu mu jaay ci yàlla dana lamb yàlla du ko jënd loolu la sëñ Ahmadou Diop a wax. Euh, borom Daaru Muxti it nekk koo xam ne ku xàmmee la te dogu loolu moo waraloon Cheikh Issa Dieng daan wax ne. man de bu ma doon rëbbi gaynde tey ànd ku mbakke mbakke na Ibra Faati lay àndal ngir fidwa ak ngoro ga borom daaru it mas naa wax ne ndigal lii sëñ Tuubaa jox Seex Isaa te sëñ Tuubaa ne yàlla moo ma ko wax sëñ Tuubaa du ko tegg te Isaa ñàkkul fulo ba di ko bàyyi kon xamoon na fullaam ak faydaam yu nekk ci moom bokk na ci yooyu it keroog bi borom daarul Muxti ñibbee aljanna ba Cheikh Issa dellu ca kër ga dane Ceerno Ibra Faati da yéem la ndax daa bokk ci wàllu yàlla yu mag yi ba noppi nëbbu boppam ndax dëkk buñ ko denc loolu Cheikh Issa wax daal na dëkk buñ ko denc borom dëru ci boppam ku ko fa fekk mu ràmm la te suuf sa day ràmm te dëkk ba day naat loolu Cheikh Issa waxoon na ko seere ko ci maam Ceerno Ibrahima moo waxoon it ne Ceerno Ibra Faati yéem na ndax ruu gi daa wàcc rek mu tàbbi ajana te fin ko denc ak bunti àjjana ñoo ne makk jàkkaarloo mu mel ni kon ku bari ay cër la ci moom moom Cheikh ndax melo yu amoon ak xàmmee gim mu xàmmeyoon loolu nag taxoon na ba euh, Cheikh Issa dafa nekkoon boroom taxawaay bu yaatu boroom taxawaay bu rëy bu ñu demee ci waxi sëñ Malamine Diop a daga nii ca nubsatu taarixiya ba muy misaal gaa ñu baax ñeeg seenu taxawaay baax si ci Cheikh Isaa dane wa minhumul muridul maaruf bi xusnil xiyaam fi kulli muhimmatin isa jenn dane bokk na ci ñooña te boobu mi misaal jumaa ji Tuuba borom taxawaay yu rëy yi mu ne bokk na ca boroom yitte ju kawe ju rëy ja muy Cheikh Isaa Dieng mi nga xam ne nee na ci ak njëlbeenam ak njëlbeenam la teeloon a taqoog Serigne Touba ànd ak moom ci di sàkku ay addiyee ak di ko liggéeyal fu Cheikh Issa fekk lu bari wala lu néew nee na dana jël loola yët ko Serigne Touba te booba fatxo gi ñëwagul ci moom. mu ne waaye bi loolu ñëwee nag dafa daal di sanc ay dëkk euh, gor ay ni di liggéeyal Serigne Touba mu ne liggéeyal na Serigne Touba liggéey boo xam ne liggéeyub dëgg la ci jiitu géej gi ak ginnaaw géej gi. nee na Cheikh Issa Diène amul benn occasion bu masarate ci kër sëñ Touba wenn yiw wu ma sa ñëw ci kër sëñ Touba ñu da ko sakku Cheikh Issa rate ca amul moo tax Cheikh daana wax ne sëriñ Touba mii ñëwuma ci kenn ci li ma ci am moo tax sëñ Mate Lamine Diop adaga ni àgg ci ne walam yataxaddam alayhi ahadun wa xusuusan fi njaareem faxat kaana xutbatul jamia nee na Cheikh Issa kenn jiitu woon ci sëñ Touba ndax taxawaay bu réy bi mu am nee na rawatina ca njaareem nee na njaareem moom Cheikh Issa jenn moo nekkoon xutbatul jamia maanaam ñëpp dañoo mujj moo nekkoon seen royteef moom la ñuy roy xam-xam bu réy bi mu amoon nag te taalibe gi muur ko Cheikh Ibrahima Diop al yi da ko wax dane xibbul xadiimi wa misbaahu tariqatihi bihi stanaarat liman yamshi yam zulam nee na soppeeb Serigne Touba mooy Cheikh sa Diène nee na làmp bi nga xam ne mooy niit ci yoonu Serigne Touba ba ku ca tegtalu doo réer nee na mooy Cheikh sa Diène nga xam ne Cheikh Ibrahima Diop nee na làmp bi yoon wi bi nit ci xam-xam di njub ci ak jub mooy Euh, Cheikh Issa Diène radiyallahu taala anhu lim làmboo woon ci xam-xam Serigne Mor Kayre dafa wax ne xat xusta xulman wa ilman thumma maarifatan yow am nga xam te wa yow am nga xam nga te doo kuy boo puukaree ko jame dana yow Cheikh Issa Diène xat usta xunman maanaam am ngam koom ba noppee ilman wa maarifa am xam-xam te xam yàlla kon am nga xam-xam am nga wërsëg te yow doonoo koo xam ne da ngay puukare wu yow Cheikh Issa Diène kon dafa boole woon xam-xam bu mat ba noppi boole kook am wërsëg waaye ak taalibeem dara soppiku ko ci moom Cheikh Issa Diène moo tax Cheikh Ibrahima Diop almasharina fatan adibun aribun mughizun yaghizun barrun karimun jawadun muxjilu diyam nee na ku baax la ku yeewu la boroom xam-xam la ku ñaw la nee na boo demee ne ci ak tab ak nangoo joxe alal nee na Cheikh Issa Dienne moom day rusloo maanaam duusi géej ak waame la muy bari bari doole Cheikh Issa Dienne ko daq joxe xam-xamam bu bari boobu moo tax daana wax moom Cheikh Issa ne li ma xam ci alxuraan ak li ma xam ci tabax dana fuus ndax kenn du ma ko laaj maanaam li ma ci xam bu doon luñ stocké na denc la ko day dem ba day primé yàqu ndax nit ñi duñ ma ko laaj te li ma xam bari na man loolu doy na ci rek lay gën a xamal loolu mooy jumaa jii di jumaay njaareem jumaay njéeréem nga xam ne sañ Tuubaa nee na mooy misbaahu ahlu sama wa najaatu ahlul ard nee na lamp bi niital waa asamaan mooy jumaay njéeréem waaye nee na it mooy texeg waa suuf xam-xamam moo tax loolu am keroog bi Sëñ Tuubaa di joxe ndigalul jumaay njéeréem ji Seex Muhammadu Lamin Jenn Sëñ Baara Jenn nee na fekkee na jataay ba keroog Sëñ Tuubaa moo woote ñu def ko juróom-ñaari sàppe Seex Isaa Jenn nga ca sàppe sa ca ginnaaw Sëñ Tuubaa dafa càpp ndaay ni baaxoo woon di toogee di fi mu jëlee jumaay njéeréem ak jumaay Touba muy keroog bi mu sampee bantam yi ca Gabon bëgg jàkka tubaab bi ñëw maasale ko buddi bant ya tuur fa ndox ba noppi di reetaan Serigne Touba. yàlla signal ko fa nag da ko da am ñaari jumaa ci réew ma muy jumaa joo xam ne mooy jumaay njéeréem ak jumaay Touba keroog bi ko Serigne Touba di nettali di wax loola ba noppi. bi mu waree joxe ndigal li daal sukk bati woom yi joxañ ca ginnaaw mbooloo ma daal na Isaa jenn mee nag moom la ma yàlla ak rasulullahi wax ne mooy jëwrin ji am na kon loolu Isaa jenn mee moom la ma yàlla wax ak rasulullahi ne mooy jëwrin ji loola tax na ba kon melawoow bi sëñ Touba tegee xeeru jumaay njéeréem ji ba noppi it nga xam ne raas bi ñu doon duggee sëñ Mor moo moomu ko daajoon di lépp Cheikh Issa Dieng radiyallahu taala anhu keroog bi sëñ Touba génnee ba génn ci biti moo jëraatal boppam turel bi daan na Cheikh Issa Dieng am sëb liggéey a ngi noonu yàlla ak rasulullah yow la ko jox loola du ca yem am na benn bis Serigne Touba yëkkati fukki dërëm jox ko Cheikh isaa na ko defal ma ko ci liggéey bi benn bis Cheikh ñëw di nuyu sëñ sëñ bi ne ko Issa Diène ana sama tuut sama la joxoon na la def ko ci jumaa ji Cheikh Issa Lam bu génne ko sëñ bi daal di koy këf na ko kaaba ga ko defar mu ne Seydina Ibrahima mu ne lu ko waral daa ëpp daa ëpp daraja ñoo ko defoon waaye Issa Diène sama dërëm bii boo ko defoon ci sa liggéey bii kenn du la ci tudd te dama bëgg am nga am ndam ñu du la ci tudd yow Issa Diène kon sëñ bee ko ci fàggul mela woowu ci liggéey boobu nga xam doona ko liggéey Serigne Touba ci jumaa jooju ci njaareem bokk na ci ci xam-xamam kon xoolal plan jumaay njaareem xoolal liggéey bi ni mu ko liggéeyee ba jumaa ji noppi bi noppee lii ñuy tuddee tunnel xam ngeen ne Cheikh Issa programme woon na tunnel boo xam ne day bàyyikoo ci biir euh, kër kër sañ Touba gi ba ci jàkka ji ci njaareem jumaay njaareem nga xam ne booba kat yi ak naar yi sonal gi ñuy sonal sëñ Touba Cheikh Issa na ko dama la bëgg a defaloon moo xam ne tunnel boo xam ne ci ngay jaar di dem ba ñëw te kenn du la gis loolu sañ Sidi Naar Dieng nee na ma sëñ Saliou Mbacké nettaliwaat na leen ko te dégg ngeen sëñ Moustapha Saliou nettali na ko nee na Cheikh Issa sëñ Touba ko loolu xëju fi tabax ko sa kër bu noppee danaa fa ñëw Cheikh Issa dem tabax ko ndànd nee na bi kër gi noppee ndànd keroog Cheikh Issa nee na bu fekkoon ne sëñ Touba mi ngi fii ci kaw suuf ma war koo jébbal caabi ji bis boobu jëmmi Cheikh Issa jenn ak sëñ Touba noo bokk fanaan ca kër ga nga xam ne Serigne Touba xamal na ko fa nee na Cheikh Issa nee na sëñ Touba xamal na ko fa xam-xami biir ak xam-xami bitti ci mboolem li war a xew ëllëg ba xamal ko ne ko nag sama yoon wii de gëléemu mu cukkal la attan na sëf bu ne ba mu rek ak nasaraane kon day mel ni am na tawféex féexi sëñ bi dem dellu siwaat te melawu xam-xam bu leer moo ko mayoon Cheikh Issa jën moo tax Cheikh Ibrahima Diop al-Mashari nee na xaasal mafaxira ida jenn su karamin wa faasa bil xurbi wa ridwaani bil xadem nee na mboolem sag yi ak tedd yi ak tiitar yi Cheikh Issa Diène moo ko jagoo moo tax sëriñ Fadilu Mbakke waxoon na sëñ Fallu dafa bind leetar bu leer wax ne yow sama baay Cheikh Issa jën man duma ma yow ci mel ni mbir du ma dugg ci dara baa ma génn ci awma lu may fas te waxuma ca ak yow loola nag maa ngi cay roy sama wuy jur wa Cheikh Bamba xadim rasul lu tax Cheikh raw ñépp xam-xam bu bari toog na ci Serigne Touba euh, Serigne Touba na ko Issa sama borom may na ma ñeenti téeméeri may yoo xam ne lam takun li waliyin qabli wala takun li waliyin abada fii ka wa fii alayhi salaatu wasalaam mi ma raqiba fii ibadaka saalihuna bila zalaban abadan innaka antal wahabul amin yàlla may na ma ñeenti téeméeri may ak ñeent fukk ak ñeent yoo xam ne wali yu jëkk amu ko wu ma jamonoonteel ñu amu ko wuy ñëw sama ginnaaw amu ko saalixu na yépp ko xemmeem waaye man képp la ko yàlla jox isaa jenn seex isaa na ko ëska yi sëñ na ko may naa la ko muy ñeenti téeméeri may ak ñeent fukk ak ñeent yoo xam ne euh, cheikhul xadim moo ko may seex isaa jenn radiyallahu taala anhu te loolu di mbiram ci digganteem ak moom ak jagle goo xam ne am na ko sëriñ tubaa digganteem ak gaa yu baax yi mel noonu noonu la meloon ak sëñ Ahmadou Diop Paxa noonu la meloon ak sëñ Lamine Diop Dagana noonu la meloon ak maam Thierno Ibrahima borom Darul Maxti mi nga xam ne lenn la woon ci moom di koo xam ne boo ko tuddee damay wax ne tudd sëñ Touba boo ko tuddee ci melo ak doxiin te moom Cheikh Issa ku yaatu bët la ku mën a gis-gis bu soree sori la ndax gisam bu sori moo tax kere bi borom daru génnee àdduna tañ taxawu ko ba denc ko ba noppi moom de waxoon na ne. Touba de lu yàgg-yàgg bu fekkoon ne dana am dana am dend Touba dana si na ko dendaleeg dara wala dana am wujj Daarul Muxti lay doon loolu ba ko Cheikh Issa Diène wax kañ la tey boo ne première capitale mouridisme deuxième capitale mouridisme yaa ngi wax euh, Daarul Muxti te Cheikh Issa junjoon na loolu yàgg moo tax borom daaru bi mu nekkee ci wàccaay mu waxoon njaboot gi ne leen seen baay Issa day bu ñëwee lu mu wax bu leen ci juyoo ak moom te maam Cerno Ibrahima day mbiram dëgër na dëgër goo xam ne ku mu bàyyi xel ci dara rek loolu mbir mu dëgër a la maam Cheikh Issa Diène ku bari tawféex la ci sëñ Touba bokk na ci ay féexam xam nga sunu borom am na juróom-ñeent fukki tur ak juróom-ñeent nëbbu wenn wi kenn ci gaay yi yàlla yi ñenn ci xej yi suñu borom yi ñoo xam sëñ Touba Cheikh Issa Diène ci xam-xamam bu bari dafa toog ci Serigne Touba di ko xool ba yàgg mu ne ko da nga nuru rasulullah yi ba nuru ko tur yu bari yi tàmbali lim ahmadou daam xaadim borom jamono di lim ba yàggal daan na ko xam naa tur li muy bari bari nag am nga sa turu bopp wow biir woo xam ne bëggoon naa koo xam sëñ Touba na ko Issa Diène ku ku ne am na turu biir daan na ko jógal foofu sëñ bi dox Cheikh Issa dox juróom-ñaari jéego sëñ Tuubaa woo ko mu ñëw mu ne ko Issa Diène loo ci namm ne ko kenn du ma kenn mu ko ba kenn ko xam Cheikh Issa ko kenn du ko xam Mouhamadou Lamine mi sama taaw sax bu a du ko xam sëñ Tuubaa na xamaloon na ko ko te loolu yu bari yu daje ci moom moo ko waral ay xusuusaatam ci sëñ Touba dafa rëy fii ñu denc denc Cheikh Issa sëñ Touba taxaw na fekk Cheikh Mandoumbe Xabbaan sëñ tubaa moo waxoon ne bunt bi gën a gaaw ci tabbal ab jaam àjjana ëllëg mooy fii maanaam bunt bi gën a gaaw ci tabbi àjjana ëllëg mooy fii ba ko sëñ Touba di wax dem na lu yàgg ba jamonoy sëñ Fallu Cheikh Issa génn àdduna Cheikh sëñ fa lu wax ñu denc ko fa ba noppi wax ne ku génnati àdduna nañ lay waajal jaarale la foofu njenne ndax ku fa jaar saa baay Cheikh Issa dana la taxawu dana la toppatoo dana la waajal door laa woon si Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul kon loolu jagle la yoo xam ne. Euh, yàlla jagleel na ko. Euh, maam Cheikh Issa Diagne radiyallahu taala anhu loolu it. sécurité. ci melo yu yooyu maam ak jagle yu yooyu maam ak doxiinu sel yooyu ko yàlla jagleel loolu moo tax euh, ku ñuy wax Serigne Mor Jooja Fall waxoon ne xawiyun bi fi'lil xayri subbaaxu gaayatin nadimun li ahlillah fi kulli xadra mu ne Cheikh Issa Dieng day ku dëgër la këng ci jëf lu baax nee na moom moo jiitu gaañe moom Cheikh Issa Dieng nekkoon na koo xam ne mu ne ko bari xam-xam la ku jàmbaare la ku amu fit la nee na Cheikh Issa Dieng teen la boo xam ne kubéer bu yaatoo yaatu bu rëy la am ku ñëw tabal sa go sa goj baa nga tabal sa baax nee na tàng ca ndox yi ngeen li Cheikh Issa Dieng yóbbaale kon sarriyun jasurun aylamun faylamun lahu fuyudaatu maa ul ghaybi rayyaanu qudwatin lahu xayru ridwanin wa nujxin lahu ula wa fiyun dimaamil kulli min dooni kul fo nee na ngërëm ya gën a mat ngërëm ya gën a baax la yàlla gërëm Cheikh Issa Diène te kat bari na ku naan walliyu la boroomub cër la ay bokkam a ko wax wala xariti boppam a ko wax waaye diw walliyu la ak diw mari saarix la sëñ Touba seereel boppam Cheikh Issa Diène loolu ker bi mu gërëmee sëñ Baara Diène dana ko yàlla gërëm na la yonent bi gërëm na la gërëm naa la sa baay Issa Diène gërëm na la te ci góor yàlla yàlla bokk kon loolu lan lay tegtale mooy day wane ne Cheikh Issa Diène radiyallahu taala anhu sëñ Touba wan na wax na ne ca wëllu yàlla yi la bokk ca góor yàlla yi bokk la woon moo tax euh, fa inni la udni saaxibaya chamlati ila markasil abraari ma kullu bughyatin ay Cheikh Issa Diène ma naa la rutbatan yafuuqu bi duuna nukri min kulli rutbatin kon loolu dana wone rek dayo bi yàlla jagleel see Issa loolu nag nekk nga ngëneel bu ñu ko jëlee tey boole ko jàmbaar ju mag ji nga xam ne mooy Cheikh Ibrahima borom Daarul Moxti doy na ca yu ma cay lim sëñ Touba moo waxoon ca njëreem ne Cerno Ibra Faati mooy gis texe sëñ Touba moo waxoon loolu sëñ Touba moo bindal boppam ne lam yu xaalif nii lam yu faarix nii sëñ Touba nee na Cerno Ibra Faati mës ta juuyoog man waaye mës ta wuute ak man loolu borom daarul maxti sëñ Touba jox na ko sëñ Touba ko waxal boppam ne ko yëgal ne saa yu bu ci say gët xamal ne man gërëm naa la Cerno Ibrahima ngërëm loo xam ne ŋàññi duutu ci topp mukk te du ma yem ci gërëm la waaye dama lay sàkkul ci yàlla borom bi subhaanahu wa taala loo xam ne sa kem yëpp danañ la la ci ñee alaxira yow maam Cerno Ibrahima loolu ndax ca la yem maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Muridina mas nañ koo laaj Cheikh Ibra Fati borom daaru lu maxti ñu ne ko waaw loo xam ci maam ci loo xam ci maam Cerno borom daaru Cheikh Ibra Fall na fekk ko ci Sëñ Tuubaa mu ne sëmm bàyyi ko fa mu ne sëmm rek waaw nee na dama ko fay fekk mu ne sëmm bàyyi ko fa mu ne sëmm kooku nag di Cheikh Ibrahima min doon waxtaane léegi Cheikh Ibrahima Diop dane ko warisal ula wal majdi wal fadli wal ula fa ma fi jamii al xalqi yalqa nadiruka yow maam Cerno yaa doonu xam-xam yaa doonu tedd nga yaa doon doonu jub yaa doonu ngëneel bu ñu doon wër penkook sawu di wër ku mel ne yow jenn jëmb nga yow maam Cerno Ibrahima amoo am kem yow yaay koo xam ne yow borom daaru fa dikruka fi l ardil mashayiq shaa'i'un wa fi l xarbi yaa man tafiidu buxuuraka yaay koo xam ne say tur dafa daj penkook sawu amul fooy dem di laaj ñu ne kan mooy maam Cerno Ibrahima waaye mu ne ko nag yow maam na yaay koo xam ne falawlaaka maata juud wa diinu wa huda wa maata du yuru nas lawlaa du yuruka bu fekkee ne tey tedd ngaa ngi dund kër yi xam-xam yaa ngi dund baaxa ngi dund loolu grâce yow maam Thierno Ibrahima te loolu mën nga koo gis ci misaal mu meer en bi sëñ Touba ci géej gi ba tale maam Thierno mu toll ci fanweeri at mu boole koog Cheikh Moustapha boole koog njaboot gi gis naa xasida gu sëñ Baara bind borom borom Darul ko way dane yow bu duloon ak ñëw duñ mokkal alxuraan bu duloon ak yow duñ xam tedd nga bu duloon ak yow duñ yegg fi fi niy wut léegi xoolal tubaab yi yóbbu Serigne Touba maam Thierno am ak njaboot gi borom daaru amul fu mu dëkk borom daaru amul fu mu fanaan tubaab yi taal nañ kër borom daaru ñetti yoonu Cheikh Modou Ndoumbé Xabbaan defaraat ko mu ànd ak njabootu Serigne Touba gi Serigne Saliou nee na Cheikh Ibra Faty daana fanaan gi mu sàq ak njabootu Serigne Touba gi waaye ndax loolu doy na waar keroog bi mu sañcee guy ngoraa njabootu Serigne Touba gépp tawat sëñ Mahamadou yi daal di génn àdduna Cheikh Modou Moustapha tawat Serigne Fadilou tawat euh, Cheikh Mouhamadou Lamine Bara tawat borom daaru tiim njabootu Serigne Touba gi ñaan yàlla ay xéewal sotti ko ci rongoña ba sotti ko ci dënnam mu ne bu fekkee ne njabootu Serigne Touba gi nar naa ñëw moom Serigne Touba jógee ci tukki bi ma koy laaxan kenn ci njaboot gi naa ñàkk bakkanu sama ndey soxna Faati Isa baa ma ñàkk bakkanu Muudu Awa Balla baa man Cerno ma wuute ko waaye sama doomi Serigne ji na dund xoola googu jaayante Serigne Touba fa mu yeggoon ci digganteem moom loolu kon moo tax mboolem melo yu baax yi daje ci moom maam Cerno Ibrahima ak jëf yu rëy yi ko yàlla jagleel moo tax Cheikh Ibrahima Diouf Almachari nee na borom daaru mësta am temps foo ko fekk lii lay def ida takallama abdaa lil wara durara wa in bada wajhahu abdaa lahum xamara wa yuxjilu laysa yowmal basi muntasira wa yuxjilul xaysa yowmal juudi muntasira nee na saa yu waxee moom borom daral moxti wala kanamam génn wala nga seen jëmmam da nga jàpp na weer wu tull ci fukki fan ñeent ci leer mooy mel waaye bu fekkee ne jamonoy wàññ si dafa ñëw jamonoy rayante ñëw jamonoy joxe bakkan ñëw nee na gaynde gu nekk ci digg mbanding Ceerno Ibrahima Faty koy raw waaye bu dee joxee sa alal nag asamaan su xottiku di tasaaroo wet gu nekk maam Ceerno Ibrahima Faty ko raw fa lasta talqaahu ila dafi an aw qaadiyan watara aw taaliyan suwara aw muhyinan sunanan aw muctiyan minana aw mucliyan mikanan aw haadiyan zuwara aw naatiqan xikaman aw jaaliyan zulama aw shaafiyan saqama aw bubdiyan bushara foo ko fekk rek kon am na lu muy occupé ci melo ak doxin woowu kon noo ngi leen di sant di am mbégte ci jataay bi bu baax ndax ñi ngeen ci boole tey ñoo ñu ñoo ànd tey ku dem daarul moxti da nga fa fekk kilifa gu baax ñu tudde ko Cheikh Euh, Cheikh Issa Dieng ku dem këram da nga fa fekk Serigne Mbacke Dieng maam Thierno borom Daaru noonu la meloon sëñ Touba doyloo woon ko wóolu woon ko mu nekk général moo tax koo dégg ñu ne digganteem ak sëñ Touba te booy nettali mën ngaa wax ba jeexal doone Thierno Ibra Faty nangam seetal diggante monte xis sa nag léegi daa xew ak réyal sa maam sama maam nee na sëñ Touba nee na ko saan nga daje te iyaaka nax bu du dong la dégg ci sëñ Touba ju timis ko lu mas a am maga ko ko jottali digganteem ak sëñ Tuubaa benn ceerno ci la yem wala ma sàmb léegi ceex gi bari na rajo yi bari internet bi bari da gis koo xam ne bu nettalee da nga def ne moo daan tëj maama ma ko ubbi te benn yoon la mas a gis sëñ Tuubaa wasalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam allah rahmatullah sëñ macha allah macha allah waxtaan wi rafet na am na solo lool ñuy santaat bu baax di ko gërëm ni ma ko waxee woon rek eh, fa tabaarakallaahu